dégg nga xale yi nee nañ xale yi ñu xale yi ñu ngi nii xale yoo la ñu xaar pour sëy. wala boo boo su nekkaay. ah mbay. non léegi ma non léegi ma takk. non léegi ma takk. waaw xale bi xale bi amoon treize ans léegi am na dix-huit ans. bon. wuyu mbay. quinze seize ans seize ans. mbay neen mbay neen tàppat nga. <laughs> moom loolu lay wax nee na man bëgguma jël responsabilité dama dama tapet ma ne ko waaw ok baax na comme tapet la baax na bàyyi ma noonu. su ma motee rek dinaa takk jabaat. am na 18 ans kay bi 13 am na 18 am na normalement am na xaw ma de. non mais gars yi ñoo xam ne gars yi ne saa yi lu muy xaar pour takk jabar instant bi nii. non ma takk léegi ma takk incha allah. léegi may kañ. waxal gars yi léegi ma takk. man damay takk. takkaat comme ni nga ko def comme ni nga ko def <laughs> takkaat comme ñaar jabar laay takk aussi comme yow rek yaay suñu capitaine comme damay topp capitaine yi rek <laughs> maa ngi dee lu mu capitaine yi def rek ma def nga takk ma takk takkaat baa nga ñaar ah? waaw deux galons waaw ah? waaw comme yow rek wala nga takkandoo rek ah wala bon peut-être non doo doo doo xam kuy aaw kuy. E. <laughs> wala mbay maa ngi dee mbay di nga dee kay. non da takk mun naa takk tey après lendemain ma takkaat. ah da ngay da ngay def kon dimanche def lundi wala nga def samedi ba pare après def def lundi. wala non samedi dimanche sa baax na samedi dimanche takk samedi dimanche. ba ba ba ànd nga loolu ànd nga ñaar di nga ànd ñaar yooyu. waxoon nga nga ne ñaar rek moo ñaar rek moo wóor. du loolu moo wóor <laughs> Sadio Mané yàq dëgg <laughs> waaye boo ma ko waxul boo ma n'est-ce pas soxna si mu ngi sa wéy boo ma ko waxul fasel benn nga xool <laughs> fasel benn rek nga xool bu fekkee ñaar wóorul kay fasel benn nga xool. non saa yi amul der. yaa ma wax tout le temps ñaar rek moo wóor ba pare naan fenn. kuy sama ndey tey eh, mbay waxale mbay nee na mbay buyu mbay moo gën non maa ngi dee ah ana mbay ana mbay mbay nee na ñeme mbay nee na yow ñeme woo quoi doo laat sax benn bay laat ñaar non bàyyi ko rek damay boo ko nga boo ko defee di nga dëkk bi de loolu laa lay wax nii. Sénégal jëm kanam. kese non